ci ay activités yu war a am ci assemblée nationale ci bésub tey jilee gis nañ sax ki nga xam ni moo di Bah Diakhaté daal di teg boobu lépp enregistrement waaye nag wedd gu set wecc la ci ñu bari daal di def comme ku ci mel ni Guy Marius Sagna du ñàkk ne lépp dina leer gannaaw ay enquêtes yi nga xam ni mën nañ ko cee daal di def waaye nag ñi nga xam ne ñoo nekkee ci Pastef Ben Taleb Sow Ousmane Diagne Ngagne Demba Touré ñëpp lenn képp la ñu jàpp mooy projet de démantèlement wu Pastef ci lañ daal di nekk maanaam ne rek ku am solo ci biir parti bi ñu daal di lay téye ñoom ñooñi loolee mooy seen gis-gis ci mbir mu ni mel. du ñàkk ne maître Moussa Sarr di avocat Wael Malick Ndiaye du yàgg dara dina indi ay leeral ci li nga xam ni exactement moom la ñuy toppee aw client wam xamal ñu itam ndax dañ koy libéré wala bokk daa nar a fekk ji Bassirou Diomaye fay biram Souleye Diop Fadilou Keita ak ñam fay fekk ñëpp. AGT News El Malick un des responsables de Pastef les a été arrêté qui est chargé de la communication du parti, se trouve présentement dans les locaux de la section de recherche de Colobane. Son avocat, Maître Moussa Sarr, confirme l'information mais ignore pour le moment les motifs de l'arrestation de son client. Certains en parlent par rapport à un enregistrement qui circule dans les réseaux sociaux, un audio attribué à El Malick Ndiaye selon Bah appelant à manifester et à semer le désordre pour ne pas accepter le vote qui doit à l'Assemblée nationale. Est-ce vraiment El Malick ou pas? Les enquêteurs nous en diront plus. Va-t-il rentrer chez lui ou il va rejoindre ses frères de parti? En l'occurrence Birame Souleye Diop, Bassirou Diomaye Faye, Fadilou Keïta entre autres. Sous peu de temps, nous en saurons plus. L'équipe d'AGT News vous tiendra informé.